Singulity Bismillah, bismillah. Selamun aleyküm. Hı, hı. Hani, hani, Bismillah. Bak bak. Bak. Nam senin. İndir marangoni dinle bir. déedéet la ilaha illallah da alku de koor gi rek ma jàpp sëriñ da ngay alku dafal bu mu tuuru soxna si waaw gis nga lii ah lii waaw bu ma si salmoo rek ah. bu sama kanam tooyee rek nga xam ni suñu rab juboo na mm-hmm. ah. waaye bu tooyul nag nga xam ni naa féq dugg na si yow man mm. waaw bismillah naam sëriñ. tooy na. xepp tooy kay. tooy na xepp si. tooy na. ah. kay xepp. sa aajo faju ah. juboo nanu. lii bëtu biti du gis de. Ah. sa aajo faju na. Ah. waxoon naa ko. ah. yow kay bu amati benn nga ko ci man rek sa aja fajuno jamal kay ginnaw yalla yonent sama yaakaar yep bàyyi nak salo li ma gis tay ji ah doy na waar bëkk xam naa ne def si yow mhm. ñaari ndigal nag laa lay digal. Hmm. su ba nga dëkk am na daara. na daara ju mag kay. heure ndogu toggal lekkatu laax yu bare nga yóbbu sa jox taalibe yi. Hmm. laax laax nga jox taalibe yi. te nga wut kaamil. na nga set nag. am njàpp. nga wut kaamil bu bees tàq. Hmm. nga jox ko sëñ ba. sëriñ bi sëriñ bi. waaw waaw loolu mooy say wareef. ci weeru koor gi. loolu kase kese. ah loolu de yomb na yàlla. Mm-hmm. acca. moom kay naa aajo bi faju rek. waa doxal. ndogu baa ngi noonu nag ah. jërëjëf fan yu koon. waaw jërëjëf allah maa ngi dem. Mm-hmm. jërëjëf soxna si. eh. eh xool du ma sa morom de. ah waay eh déglu ma fii de. ngay jéem a kii wax ngay. dootoo bëgg may ma. damay ubi xol nga ma ay doto bëkk yow xam nga ni yow yow nga ma ay bëkk yow man may sa bëkk ya bëkk bu amé client la sa amul client man may chef nek fi di jema ni sen ay sa ba gi gi eh eh fu waxtu bi toll wax wax ma fu waxtu bi toll way waxtu bi toll eh eh espèce de bu ba Ndiaye yéen ay dëmm laa wax Bouba dëmm ganaar yi ngeen doon. yaa ngi tooñ de xaw ma si dara laa. yaa ngi tooñ de. tuus la dara tuuma booy ba nga dóor ma laa pour fañ de. xoolal bu ma balay jàll. eh seetu ganaar gi maa ko créé. biñ laa doon nga fi lekk laa. bu ma balay jàll de. booy bu booy ba nga jàll. bu ma bàyyi ginaar bu ma waxtu ndogu léegi mu jot. biñ laa du ma ko bàyyi. bu ma léegi heure ndogu jot. ma ñàkk sama de du ma ko bàyyi. bu ma balay màtt de. màttal jaral na ma ko màttal. bu ma bàyyi sa damay màtt de damay màtt. bàyyi ma ganaar gi mooy woo ko jooy naa maa ngi maa ngi doon damay dama lay matt de. waaw oh, matt. Ah, bàyyi leen ganaar gi bàyyi leen ganaar gi laa wax. tegee sa loxo laa wax. maa ngi ci boxeur la. booy seere ma paa boobu yow. Eh, eh, eh, waay noppil waay. dama lay alak de. doo defee dara dama lay alak de. yow jaanu pharmacie nga. Ali Ali sa baay lañu Ali. waaye jamonoy papa ak yaay dafa jeex. Ah, ah. di ko waxee mais Aliou xoolal paa bi. Aliou da ngeen di alko de. alko yéen mun eh, nga alko alkoloo kenn yéen. Eh, bu ginaar gi jeexee ñu alko. booy booy gis nga lu may wax paa yi. waaye paa yi perral lañu. xamuñu tous nekk fi di naxaate xoolal ñooñu ñooñu ay ginaar di leen indil. Ah. booy paa gaawal tuuti. oubien li waay yow li waay. waaw mais Aliou doo ibbi boog. non suñu ko day ëpp booy bàyyi ma sarax rek. Aliou ndogoo ma jot de. kii ñoo koy lekk man jaay ñoo koy lekk. <laughs> di ngeen si mos. xaraam ngeen boxeur waaw <laughs> wala boog xool oh, bu gi jooy de waaw oh, waaye jooy de. <laughs> wóor ma eh, pa eh, eh, jooyal dërët <laughs> ganaar <laughs> kooku ri kook daali waaw waaw ndogul li booba xaw ma gis dara pa boy mënoo noppi yow jaaji yow mënoo noppi yow jaa xaw ma roof nañu xaw ma roof ñu mais doo ci boy mën na xaw ma roof nañu ko du ngeen ko lekk waaw mais ngi naan ginaar sama ak mooy ndal. sama ak dana dana dana yeesu ba ba jóg naa rek am. eh mais sama jàmm. si bu mi ngeen sëy. ginaar gi bu ma wax xol bi ma boole sama taaw.